Coly Faye ngi noonu moo ngi ànd ak waaw Coly Faye nga xool ko waaw ñu ngi dina ay supporter am Coly Faye ngay doo góos waat ngi noonu xolal xolal ma loolu jaan ba jaan la de moom la nu noonu waaw waaw Coly Faye face à Ada Fass Ada Fass a ngi noonu gis kan dem xooli Ada Fass noonu am na yooyu koy sotti Ada Fass dox di ñëw Ada Fass a ngi noonu tàllal na loxo ba ay supporter am Ada Fass am na béjjën bu mu yor ci loxo ya am na genn nag ba mu yor noonu nee dama koy rendi mooy xool ku waaye booy xool sax ñoom ñaar lañu sol dafa xaw a nduróo colinu Ada Fass ak colinu Coly Faye boo xoolee ñaari colin yi benn la kii wiise bu sew bi la sol kii sol bu bu noir blanc bu karale bu dijj bi lay lay la Ada Fass Ada Fass a taxaw di waaj dem ci digg géew bi Senghor yamu rango bari na waaw <laughs> cey làmb làmb daal lépp aar la Ada jaayu Ada daal la ngay jaayu xabtali la la xoola kee la muy bind Adama jëlal ma kii kee la muy bind avant Ada Fass ay dugg eh, làmb ji teel naa coow moo ngay tibb fal ma kooku moo ngay woo aada alaa ngay ñëw jéggi na jaar dem Ada Fass jaar na fa aada dem na Ada Fass a noonu di daw di wër géew bi am na leket bu mu teg ca bopp ba ma ngay wër géew ba am na ku mu àndal moom Ada Fass moo nga téye kaan ba Ada Fass a ngi noonu ma ngay ba neen dama koy duma Ada Fass nee na ko dama koy duma waaye est-ce que dina duma Coly Faye ma ngay daw di wër géew ba ba waaye mbokk yi cumukaay li bari na xolama Ada Fass la mu teg ca diggi géew bi laay lépp ay tegtal la ay ndox am na fi maa ngi fay seen pom ak banaana ak butéel yi laay sey làmb ji Ada Fass tekki na leket ba ma ngay wax ak Coly Faye Ada Fass a ngay wax ak Coly Faye Coly Faye a ngi noonu di ñëw mais mbër tey làmb ji lu mu laaj. non fii tekk a ngi noonu. nee na ko tey wax. waaye dina wax ak Ada dina wax ak Ada Fass. a ngi noonu. ku muy waxal am na ku muy ci kaw ci biir mbëri Adama. am na ku Coly di Ada Fass Coly di waxal. jëlal ma kooku aara xanaa ci maaraay la bokk xanaa ci maaraay la bokk na Coly Faye Coly Faye nga wax ak moom jëlal Coly ci maaraay Coly Faye la bokk làmb ngi noonu nee na ko demal tey làmb làmb yaa lépp la moo gumbe waaw tey Coly waaw takki ndaa bu ñuul baa ngi noonu bakkan bi fii laa koy teg nee na tey bakkan dama koy rendi est-ce que